eh dafa ñëwaat de aja ñëwal bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw ñu sant yàlla julli si yonent ñoo ngi sant suñu ñaari waay ji ñu ngi nuyu mbooloo bi fi teew yëpp di la nuyu yow Modou Mbaye di yëpp di maa ngi nuyu waa Grand Médine yëpp góor jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di nuyu di nuyu sama sëriñ sëriñ Issa Touré mu xatam ma Abdoul Aziz Sy Dabakh borom soppireem ak noflaay di nuyu xalifa général di Tidiane di nuyu xalifa général Mouride di xalifa général yëpp maa ngi nuyu ñëpp di baal maa ngi lay nuyu dégg nga sa anniversaire onze billahi mina seytaani rajiim Modou Mbaye sant naa yàlla julli seen bi sant samay ñaari waajur di sant ñëpp mais avant tout Modou Mbaye damay ñaanal sama gars yi nekk saami sama boy ñoom tete vie ale Amet Ndiaye ñoom Arma Ndiago bu tàng bi mëgëy taala xam nga sama xel a ngi si yéen yéen laa am oo ma lu dul yéen gars yi nañ ma jàppale bàyyi sama boy sama troisième combat arène ba tey yàgg nañ ci kaso bàyyi seen waajur ñoom lañ yaakaar mañ ci jàpp te yàlla tax xam nga di ñaanal ñëpp Malick ma waroon la ñu jàppale. waaye comme jóge stade rek di ñibbi waa ñu ne booy dañoo xam nga def ay affaire boobu ba léegi ñu ngi kaso léegi mat cinquante billaahi nañ si jàpp man booyoo laa am amu lu dul ñoom te booyoo xam nga rek seen waajur ñoom lañ yaakaar boobu ñu fay taxaw ba jóge fi te duñu wax si ñoom parce nit da ngay rek waa ma maa taxoon mu bàyyi seen gàlle ñëw bi sama jëm Macky Sall dama lay ñaan julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam Macky Sall yow góob numéro 6 bi 6 bi Modou Mbaye yow moom gaan bu lay seetaan rek àdduna lay seetaan lew léegi góone 10 bi dama lay na ah, nga jàpp si te yàlla tax ngi 100 mètres xam nga ñii ngi mooy loolu yaa am waaw ah, léegi nag ok existe jàppal ci loolu léegi nag kii xam nga kii xam nga kii ngay bëri Moodu dafa am benn affaire bu ma la bëgg a expliquer ah. Bacel dugg naa ko quatre fois. quatre fois non dama bëgg ñu waxtaan man ak yow di ngeen wër quatre fois laa dugg Bacel heure bi bu mujj fi laa ko la saara fee ak dégg nga la heure bi fii laa ko daane <laughs> eh, fii fii ñu taxaw nii. dem foofu mii nii fii laa ko daane ah. <laughs> waaw waaw tàcc leen loolu waay Baye te ñoo ñoo ko gën a doon xale fuuf doon koo laa ko daane ah ay yàlla <laughs> kii dañ ne ba maan bi donc parcelle dama kaa dama ko doon rey dama koo sànni kii nag eh, waaye léegi nag kaay la daje ngaa tëj dëpp gi laalaake bi kii nga dajeel dégg fi wax fii la daanee diw fii la daanee kee fii la daanee kee. Maodo Mbaye fii de mooy takkusaan bu ne. maa la wax lii. loolu jarul di wax wax ko doyee dina sax laaj doy sax. dëgg yi wax bu doy ak dal ak laa la may sàmp yooyu yëpp dinaa ak ñoom parce xam fa laa ko teg man xale laa damaa ne si yoon géej waaye damaa yaakaar du paa bii moo may téye. bàcci Seex Ahmadou Bamba agogo bu arbitre sifflé man maay dirigé man maay def maa lay wax yam ma fii du micro moo ma tiim de bu fekkee arbitre sifflé ba a agogo mooy tax man ma gaañu daf leen defaral ma bàmmeel te xam ne dinaa dee ndax damay dal sa ba nga xamee ne paa laa nga waroon yaru mu neex jox la ko ndax amoo ay bëy ñaral maam nga demal toog mënoo si ot xale mi lay xewee bàyyi ma Ndiaye parcelle ñi nga yaakaar dem di uti ci wàllu booy ñëw joxale leen ngeem ñoom ñëpp ñu ngeemu ñëw man soxlu maa bëgg yow kese de ñi ngay àndal ñooñu ma ni koy waxee yooyu jox leen ngeemu ñu ñëw man ma Ndiaye da nga yéeru rek yéem si kudd ma roof la si da nga yéem rek. maa ngi dégg ngay wax rek Baye Mandiaye yaa ma ëpp doole yaa ma naa ko bëre moo ko waxee woon Baye. mooy xëy chaque jour di bi ak gogo yow benn combat ngay ak gogo benn combat amee. yow ku dàq bëri ku gën a doon xale foofu foofu sax dañ koy teg ndax baax ku dàq bëri ku ëpp fit ku gën a ñeme entraînement ku gën a fonk làmb ku gën a bëgg a teral sa yaay ni ma ko waxee woon tëggin. ku gën a fonk làmb ku ëpp li nga jël ci ay drapeau ci làmb yal na la yàlla may nag. Baye Mandiaye da ngaa defee xam mbirum yàlla rek yàlla yoonam si góor gu puudaru asamaan ci jëriñ jaajëf. lii may wax nii dafa tuuti si man dafa teel a teel si man parce que nag yàlla bu lay may ndam. nekkal koo doon dàqal bëri si àdduna bi. ngay ngay defet da ngay may defet man am ku xale bu nekk ci yoon yaa ngi ci yoon xale nga xale la te man man damay dëkk non maanaam fu mu toll nii man damay ñaan yàlla sax mu téye ko nii wala am kese Modou Mbaye Modou moo damay daj ay coono yu métti du micro bi moo ma tiim ni ma koy wax. daje nañ diin ya man kuy soo seeg moo du may wax laa lay wax de aga góor bu nax nit ñi kuy soo seeg di daaj seeg barke alxuraan doo ma daan man kuy soo moo daaj cat ba may daan ace ñu dem mbokk yi combat bi mi ngi war a am bisu le 10 muy combat boo xamante ni combat boo am solo la Agogo ñu bàyyi la nga woote waaw maa ngi woon ñëpp di ñaan yàlla def jàmm man mu Mandiaye mii dama tax ak ŋaawe wala boog ñett bi dëkk loolu déedéet waruma man dafa am ma war a def ci làmb lu ma war a wane ci làmb jeex na tolluwaale nag léeg-léeg nga toll koo xamante ne da ngay jàpp gaal ak ku ne toll na man dafa am lu ma ñor jeex maa ngi woon ñëpp nag si combat bi combat dafa yàgg comme ni ma ko waxee woon daaw le 29 euh, avril la war a nekk corona léegi mu la tuuti te xam nga ne nekkul sax ñii laa war a bëre nekkul sax ñii war a bëre loolu bariwul solo waa damay loolu mbay maa ngi woo waa Grand Médine Grand góor jigéen mag ak ndaw képp ku jàkkaarloog Agogo na nga yëg ne yow laa yëgal combat bi bu la ko jot may rek ñëwal Grand Médine rond maa ngi woo Mouhamed Ndiaye Rahma mu ñëw jàpp si combat yi mu ñëw jàpp si biir yi dem làmb jël père ba père ba bu Papa Sow maa ngi koy woo si làmb ji bëgg naa mu ñëw jàpp si combat bi Youssoupha Niang comme ni mu ko dem dafay sécurité ñu ngi la ciy woo ñu ngi la ciy yaakaar yàgg nga cee jàpp Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye promoteur wala boog ancien promoteur maa ngi koy woo ci combat bi Aziz Ndiaye damaa nga jàpp ci ci sa barke turam loo Pape Mor Lo ñu ngi lay xaar ci làmb ji yow dama la wax lu bari ñu ngi lay xaar ci làmb ji Babacar Diop Karim Wade maa ngi koy woo ci làmb ji Abdourahmane Balde Dura li ca Kolda mu nekk fa di def lu baax di jàppale seen dama bëgg nag mu ñëw dugal ci boppam génn ci biir ñu may ko gars yi ñu ñëw Mame Boye Diao maa ngi koy wasi combat bi combat bi daf may soxal Mame Boye Diao bëgg nañ mu loxo Mame Boye Diao kese bu ñëwee xam ne laa ma jeeg grand maxet Padoa maa ngi koy woo ci combat bi sunu waa Sall maa ngi leen di woo maa ngi nuyu sama di nuyu sama gars yi ma àndal waa écrit di nuyu Sall di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak ndeysaan jum naa si wax maa ngi ñoo far yow ñoo far eh booy wooteel. Modou. kaay nii agogo kaay. agogo. kaay nii waaw. agogo. fii amul ay affaire de. eh eh, eh, eh booy wooteel booy xoolal wooteel. yooyu. lamb lañ amu fi. ah wooteel. woo waa guy ga ah. gi ñett mbaar moom sële gunaas te ñaanal suma ay grand yu toog fee. waa booy jinne Maguette Seck samay mag lañ. yaa na leen yàlla may ndam xam nga di sant sama waa koñ wa Malick maa ngi lay sant Jibi Ahmed Bogis ama vraiment ren bu bàyyi ma Ndiaye surtout gaynde Dumbul Ousmane Jibi Balla Petit Petit Aya yéen ñi ma àndal fi Baba Kabana sama rek maa lay bëggee ah ñoom di bëggee tamit suñu waa kër samay mag yëpp maa ngi leen di ñaanal di ñaanal sama yaay yàlla may ko gudd fan wér gu yaram sama papa yal na ko yàlla xaaree aljana Malick sa yaay yal na ko yàlla xaaree Papa sa yaay yal na ko yàlla xaaree aljana di wax làmb ji ñu jëm Modou Mbaye kafu ma ci réewu ma ci ku ko bëgg a yàqal ma teg la fële billaahi wallaahi ak si yàq ma bu baax damaa ne si yoon war a dem Modou Mbaye maa bëgg a teral sama yaay doomu géwél laa te yow xam nga ni géwél dañoo am jóg ak si alxuraan ma tey nga mooy sama maam balaa dégg fukki bal ñaar ma tuuti ndax kër maamam amul luy sët ci àll la ni dee ñëwal